asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daay te yëpp ah di jéegalu ñëpp nag tey nga dañ doo ñëw suñ micro bi mooy loolu mais ba tey ñu kii leen rek doon tëdd jaaraat feneen def nii ndax yéen ñu ko tàmbal ñu seet ki nga xamante ne moom mooy Ibou Laya Ibrahima bu xarañ loo Ibrahima promoteur ndax dañuy ñam ci xarañ loo bi ñoo ci promoteur bi di ko félicité waat nag bu baax a baax moom Ibrahima gannaaw ba Modou Lo bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Boy Niang muy le premier janvier mu nekk combat boo xamante ne nag ñëpp ñi ngi ci doon xaar Modou ak Boy Niang mais ñu gis combat bi fu mu mujj di encouragé Boy Niang nanga ko le meilleur reste à venir dañ koy bàyyi mu nuyoo Ibrahima xarañ loo la ñuy waxtaanal après ñu ñëw ci Ibrahima promoteur maa ngi lay ziar Ibrahima waaw Fadma maa ngi delloo ziar di wax asalaamaaleykum gannaaw bu ñu sant yàlla jël si yonent bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi ñaanal suñu waajur bu góor yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ñaan suñu waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko ba si kanam mu fekkee njëriñ njaboot yëpp incha allah ñu ngi ñaanal bépp waajur wax dëgg yàlla di nuy sénégalais yëpp di nuyu 14 région Sénégal yëpp képp ku doon ñaanal Modou rek ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. ñu ngi nuyu waa Ndar di nuyu waa Tivaouane di nuyu suñu sëriñ sëriñ Mbaye Sy Abdou Aziz ak njaboot gi yëpp ñoom soxna Fatou Sy soxna Mariam ñoom sëñ Moustapha Sy ñoom maam Maodo maam Abdou ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar. <laughs> nuyoo bi am na solo mais mel ni victoire neex na te ni wula xool ni nga naayee ñëw na ko la <laughs> madame sama chérie di ko nuyu bu baax a baax ñëw gàtte ñëw barki yéen tamit <laughs> madame Faye Ndiaye jaam si yow rek ma chérie d'amour mais wulaay mhm. victoire neex na waa victoire victoire xam nga sport moom dañuy nii xam nga victoire défaite ak nul. waaw hmm. ah, donc te képp kuy dem tamit victoire ngay ñaan kon bu la ko yàlla may da koy sant rek. Hmm. wax dëgg yàlla ñun ñëpp duñ doon ñaan rek di uti mu dafa ut si woon boo ñaa ut si woon. Hmm. yàlla dogal ni keroog le premier Modou Lo la yàlla jox ndam bi. comprendre nga ñu ngi koy félicité bu baax di ko ñaanal ndam bi jikko di encouragé boo ñaa bu baax tamit di ko wax di yàlla. xale la ndaw la li yàqalu ko dara ah. mm-hmm. way na jóg takkaat dàll yi rek duggaat ci mbeex mi xam nga mm-hmm. dem ci écurie bi yaa ma gën a xam parce que comme ma ko waxee rek mm-hmm. te dafa ñoom bëri ci final tey ku ñëw tey Boy Niang bu dee bay bëri roi des arènes dëgg yàlla kon ngàcce ngaalaama yàqaloo ko dara dëgg yàlla Modou daan la du gàcce quoi kon ñu ngi koy encouragé bu baax di ko ñaanal yàlla mu am jàmm xam nga dëgg yàlla gis nañu wàccaay wàccaay combat dafa metti tey nga dem làqatu jëf regroupement ñu dañ koy dund xam nañ ni mel donc sacrifice yooyu mu def yëpp bàyyi njaboot bàyyi yaay bàyyi papa bàyyi jabar bàyyi doom dem isolé pendant de mois xam nga di liggéey tey bu sañoon ndam lay am mais nag xëy na suñu ñaar moo gën a foor daal. <laughs> fi nga fi nga jeexalee foofu laay ñëwee muy ñu gis ni ibu Laye Modou Lo dafa am continuité dafa daan Ama balde wala mën nañu wax dafa jëlandoo ñaari avance ndax Ama la njëkk jël avance am. Mhm. jël bu booy Niang coow li bari. Mhm. ñu ne Modou day cenc Boy Niang lay njëkk a mhm. ñu gis ni te loolu noonu ñaari avance yooyu ak euh, instant yooyu mën nañu wax ne ñaari avance yooyu bokk na li nga xamante ni sax moo xaw a yàq tuuti Pikine dem nañ bañ na Modou sax day jaxase Pikine mais ñaari avance yooyu lan nga dundee Boy Niang ak ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé. non xam nga Modou sax d'habitude moom duy jël ñaari avance quoi. boo xoolee mook Ama ñoo amoon contrat. bu yàlla dogal ñu dem ba combat bi du jege mu du am blessure. Mhm. tu vois. Mhm. donc après ñu ajaat combat bi indiwaat ko dem ba ci biir avant aussi am blessure ñu ajaat ko. Mhm. comprendre nga bon c'est euh, un certain temps aussi. ama am na benn diggante boo xamante ni moom si la jël Gris Bordeaux quoi. comprendre nga léegi comme que ñoom ñaar ñëpp amoon nañ temps boo xam ne koy xaar. bon ñu naan combat bi dina am ak du am nekk mois bi ak nekk mois bi après par la suite si la du jël avance bu Boy Niang quoi c' était la première fois Modou jëlandoo ñaari avance. kon loolu moo ko indi woon quoi. waaw donc comme ni ma ko waxee rek moo du être ay adversaire am ñoo dëkk Pikine rek. mais du question ay tas Pikine Modou parewul digul amul xolu tas Pikine amul xolu yàq Pikine. ay adversaire am fa dëkk rek. comme boo ñaan ni ay adversaire am dëkk woon géej waaye loolu rek ñu gis ni combat bi da ngeen cee communiqué ne li Ama Baldé daan ko moo gën a yomb ko booy Niang ñu gis tamit jël bi ngeen daan booy Niang seen communication chaque jour gis nañ Modou peut-être li muy communiqué sax day ruube mais tey ni ngeen communiqué ci combat boobu lan la da ngeen jàppoon ne booy Niang moo gën a koréas Ama wala booy Niang mooy gën a mën a joxe Mhm. non xam nga tey boo seetloo tey Modou sax moom moo dëgg ko woon loolu quoi. ñu ngi ko invité woon ci plateau 2 es xam nga. ñu laaj ko ñu posé ko question boobu. ñu ngi ko bi ko père Bécaye boo posé mhm. mu ne ci côté xel quoi. Mhm. bëreeg Boy Niang moo gën a compliqué que bëreeg Ama parce que Boy ñaar day calcul xalaat quoi day taxaw day def ram d'observation comme laa daanaka te pourtant ni mu ko waxee. noonu la demee. Mm-hmm. ama bi arbitre ne pire. xaaru Fara xam nga xaaru euh, kon xam nga ni ama di bëree. boo ñaa bi arbitre ne pire dafa dafa am d'observation. voilà donc foofu la mu doon waxee quoi. question ay naq jafe bëreel rek ñàkk jafe bëreel. muur mm. génération boobu noonu. Mm. kenn jafe su bëreel ak moom. Mm. déedéet. mooy booy booy moo leen mën. moo dégg nag mais Modou du morom booy. Ah, boy yi Modou 2005 ndax suñu nee Modou 2005 Modou 2005 la dugg ci làmb moom Balla Gaye ak Lac de Guiers même génération lañ. Mhm. ngeen ne Modou Lo ñooñu moom moo leen mag ñoom ñooñu ñoo ko mag mi ngi soog a bëreeg génération mhm. mais tey bu ñu ñëwee ci génération boobu su ma nee 2005 ba 2019 tey lan nga mën a lan nga mën ci mën a wax tuuti ci carrière am ndax ku xamoon Ibou Laye Ibou Laye moo doon sotti galaaj Modou Lo loolu dañ ci ñëw mhm. mais Modou Lo 2005 ba 2019 bëri na ci ku nekk Balla Gaye bëri na ceek Bombardier bëri na ceek ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione ainsi de suite ainsi de suite mais Modou Lo boobu lan nga ma ci mën a wax tuuti ci carrière waa jàmbaar la. Mm-hmm. parce que boo xoolee am na ñu mu door a ndoowoon egg si mu egg am na ñu mu door tey seen état de physique ak état de physique bu Modou bokkatul kon Modou bu bu dee bi mu dooree ba léegi ba egg fi mu egg si nii tey mu gën a am doole yi macha allah. kon ngàcce nga laa ma loolu na gëm-gëm la ak bëgg li muy def xam ne lii maa ko opté bàyyi bépp métier bu ma amoon dugg ci lii kon lépp lu mën ci jàpp wala ma koy jàpp lu dëgg kon loolu vraiment c'est à encourager quoi rakka bi nekk si ginnaaw tamit dañu xool si loolu mbir boo si nekkee da koy bëgg da koy gëm tey moo du gëm-gëm boobu mu amoon si làmb moo tax ba egg si fii ba pare gëmoon ni day tey roi des Modou loo ko mosaan a wax moom gëm-gëmam mooy que ni tôt ou dina dugal droit des arènes bi parcelle. am na ay mbër yoo xam sax gëmuñu woon ni Modou mun na ko dugal parcelle ndax ni mu toll tuuti waaye bi taay bi comprendre nga mais gëm-gëm mooy lépp. gëm mooy lépp quoi. te Lo combat am ak Baye Mandione lan nga ma ciy wax. waaw combat ak Baye Mandione gis nga. liggéey rek parce que dafa jóge si Balla Gaye xam nga jëlee fa defet demaat takk dàll yi góorgóorlu am baay ma Mandione te gis nga ni mu demee bëri bàyyi wu ñu woon combat bu neex. bàyyi wu ñu nag ba léegi moom nanguwul affaire bi <laughs> suñu grand ñu ngi koy nuyu <laughs> comprendre nga <laughs> mais gis nga. contre Baye Mandione combat bu rëy la fa bëri. Ah. te boobu gis nga gis nga di mu toll ak booy ak Baye ni mu toll. moo tax mën la chaque fois bu gars yi di jaawale euh, force ak masse. bu doon loolu rek moo du génn si si du génn si Gris Bordeaux du génn si Baye Mandione. Modou Lo Balla Gaye deuxième combat bi Ibulaay lan la ma ci mën a wax mu nekkoon combat boo xamante ni gisoon nañ amoon ngeen ci confiance que ni Balla Gaye euh, joxeetul Balla Gaye dafa xawoon am ay blessure ak yooyu noonu ñu gis ni dañ ne Balla Gaye wala ñu ñëpp ñoo ko waxandoo que ni mu nekkee Modou ni mu nekkee bête noire Pikine mm. Balla Gaye moom mooy bête noire ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo mm. loolu noonu nan nga koy déggat ak tamit ci côté performance gis nañu Balla Gaye ñi mu daan mm-hmm. Modou Lo dalee euh, euh, Modou Lo dalee Balla Gaye ñi ko daan. Modou Lo dalee na daan mhm. mais tey ci côté performance boo ñëwee ak Modou Lo Balla Gaye lan nga ma ci wax. <laughs> <laughs> non Balla daal Balla daal bi nga doon rek. Euh. bala daal wax dëgg yàlla comprendre nga. Mhm. wax dëgg yàlla tamit champion la xam nga mais. bu amee Modou loo li mu koy jëral dëgg dëgg dëgg dëgg du ko jëral yi par rapport ak parce que Balla Gaye moo xam Modou Lo. mais lan moo tax yéen ñëpp yéen ñiy àndal Modou yëpp gën naa Serigne Ndiaye moo wax loolu yéen di ngeen a jege Modou lan moo tax ngeen ne Balla Gaye dafa xam Modou Lo. non mais parce que Balla moo xam naka la ñuy préparé Modou Lo. Balla xeebul Modou Lo. Balla xeebul Modou Lo quoi Balla boo bu amee combat moom Modou Lo da koy jël au sérieux. xam naa ne kenn du ko yee entraînement. Mm. kenn du wax jugal dem da koy jël au sérieux quoi donc bala daal loolu tamit day am sport quoi sport day am bête noire pour l' instant. loolu nga mën a wax parce que Balla Gaye moo moo ñu daan deux fois donc mu nga ne suñu la. waaw donc xam nga amul amul dara quoi mais Balla daal xam naa <laughs> Balla daal mooy Balla rek. <laughs> waaw. Uh-huh. Hmm. su ndax dafa nekkoon combat boo xam dafa taxaw ñu ne différence de poids dafa bari. Mhm. ngeen jël combat boobu combat boobu lan ngeen ci jànkonteel ndax gis nga dem benn instant ñu ne poids bu mbaax ji moo daan Modou loolu lan ngeen ci jànkonteel. waaw combat boobu nag moo defaat Modou mbër. Mhm. parce que Modou Balla Gaye bu njëkk ba. après dafa jóg defaruwaat. Mhm. di góorgóorluwaat di góorgóorluwaat beg si waat ci bëriwaat ci des arènes. mais bi mu bëree ba euh, fekk na léegi màgg na xam na comme daal nanga xam na fi mu bëgg jëm et yàlla dogal mu ñàkk komba boobu noonu te mu combat boobu la waxoon wax dëgg yàlla bu ko si yàlla maye ndam moom day bàyyi poids lourd yi fële ñu góor góorgóorlu mu ñu wàcc ay moroom kon ay ama boo ñaay heure yi bëriwul nañ bu yàgg. kon Modou loolu suwee boobu. loolu bu yàgg bu ko yàlla mayoon ndam si bombardier boobu noonu. kon moog boo yëpp bëri nañ. billaahi. tey jàngat la ci Ama jàngat la ci Boy Niang tey moo dafa doon bëri ak magam di bëri ci trois des arènes mu perte ko mais après dafa dem defaru jiwaat nekkaat ci entraînement yi góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu ba yàlla tëggaat loxo bi kii yàlla tëggaat roi bi si Eumeu Sène Modou am Eumeu Sène jële ko si Eumeu Sène tey ñoom bu ñu amee lii ci Modou dëgg yàlla nañ def ni Modou def rek am gëm-gëm bi rek demaat utu ko d'accord waaw. Boy Niang coow li dafa bari woon dem ba benn instant ñu ne état de forme bi ñu gis boo Niang bi ñu gis kanamu victoire par rapport ak Modou Lo ñu gis ni moom kon li ma ko waxoon ci open press ba dafa relax yéen ñi ànd ak moom relax. Mhm. bataille psychologique la woon wala lan la woon. non non xam nañu xam xam ki ñu àndal rek. Mhm. gis ni mu waaje rek ak ni mu paree rek xam ne kii pare na quoi Modou ku nekk moom képp ku ko jege woon da nga xam ni kii pare na donc boo tiitee rek ma da nga lay yàlla quoi. Ah. vraiment. boo ña waaw góorgóorlu na boo xoolee euh, jël na ko ni ko war a jëlee xam nga xam nga combat moom wàccaay la rek. adversaire boo am xam nga ni nga koy préparé xam nga li ne ci moom donc boo ñëwee jour si da ngay rester leçon rek méttiwul. kon yaakaaroon na combat Boy Niang ak ak Modou euh, demee nii. Euh, jàppoon nga ni mënoon naa demee nii kon ni mu ni ñu nu booy ñaam mammee ci kawam muudu ak li mu bëri. non parce que ñun loolu bett ñu ñun xamoon nañ ni booy ñaa par exemple li mu signé contrat du ko du ko indi quoi ñun loolu moom xamoon nañ ko. ok que automatiquement rek booy ñaa day ñëw dox ci kaw muudu comme contre Ama Baldé non xamoon nañ booy ñaa day de renforcement booy ñaa du bëree noonu. d'accord loolu du bëree booy ñaa quoi. Mm. te booy ñaa su defee si biir round d'observation bi bu yàggee. Mhm. moo da koy yoole. loolu man bett ma woon quoi man. Mhm. donc boo xoolee boo Niang après dem na ba si biir. Mhm. day xaw day xaw bi parce que tey boo xoolee charge yi ñu ko teg liñ ko yàpp xam nga. ñi day saturé parce que benn parti dañ naan xaaral benn parti la demal benn parti naan la boo doxul ci kawam munoo ko daan. bari day bari. Mm. <laughs> boo ñëwaat day bari. ok te dafa am combat yoo xamante ni. Mm. dañuy bàyyi mbëri mu firi. am combat yoo xam ne bàyyi mbëri mu dem def li mu mën. Mm. mais boo ko tënkee rek yàq ko. Mm-hmm. Mm-hmm. boo ko tënkee yàqal ko ñu gis ni euh, ñun ñëpp ñoo ko gisandoo est-ce que bokkul ni ci waa parcelle ruube bi ñu ko ruubee déstabiliser wuñ ko tuuti côté avant yi avant moom moom Pikine ainsi de suite ainsi de suite non non loolu <laughs> loolu dara loolu maa ngi dégg suñu frère Tafa Kanji sax di ko wax keroog. maa ngi ko di au passage moo Kanji xam nga di leen wax di courage tamit vraiment. Mm-hmm. taxu nañu seen mbër mais yàlla moo dogal ni affaire yi la doon des quoi. donc loolu amoon na loolu amoon Balla Gaye ak Boy Niang hmm. waaw yooyu dara am na loo xamante ne moom lépp loo mun def ci pour déstabiliser sa adversaire da nga koy def. waaw. tous les moyens sont te loolu bon est-ce que koo mu loolu Boy Niang war na ko mën a jàppe dara quoi. Hmm. ah non non Boy Niang ak Ama Baldé ñoo bokk ndey ak baay hmm. bu déggee ñu yuuxu Ama kay xaar dafa war dafa war a dafa a. Ah, kon la moo tax boo leen nekk boo leen boole woon nekk 1000 pour cent ma daan leen sax mooy gën a neex mais bugguma ngeen dispersé wu mu nekk 30 ki mu nekk <laughs> ki moitié bi ngay ngay ruubee <laughs> non ah. non non du loolu de. Ah. daal defe naa ni du dara. Mm. boo ñaaw bu déggee turu Ama di di di Ama daal keroog tamit turam bi saf na fa trop. waaw Ama keroog Ama Ama yee bi dox saf na fa trop sax. waaw du dara quoi. làmb moom loolu moo si nekk neexal supporter la rek xam nga stade bi neex ki ko stade bi képp ku fa ñëw kontaan nga quoi. Mm. am na ambiance xam nga am na bëre am na lépp quoi. donc yooyu ay neexal la rek mais du dara. Mm-hmm. Modou Lo daan na daan nag euh, Boy ñaa ñu ne mooy gouverneur pikin léegi <laughs> nañ Alaaji Mbay ak Paate Balde nee bala ñu koo jox gouverneur il faut que mu jaar si ñoom. si si <laughs> Pallou bi nee na fu mu dajee Modou. waaw kurpañ di kurpañ <laughs> loolu ay tooñ la rek yooyu yëpp yooyu yëpp ay ay neexal la rek. mais du dara ay maire Pikine gouverneur Pikine yooyu yëpp du dara. Mm. nee naa la Modou. ay adversaire ñu dëkk Pikine rek. Mm. comprendre nga. Mm. te boo xoolee moo depuis mu Eumeu Sène ba léegi. Mm-hmm. yàgg na quoi ay adversaire ñu dëkk Pikine rek dafa tombé rek mais ah. loolu dara waa Pikine daal xam nga nañ gën a booloo gën a nekk benn bokku ndey ak baay. Mm-hmm. xam nga du jéem a dundal seen deux cent pour cent bi xam nga. Mm. gëm ko quoi. Mm-hmm. parce que tey ay talent ñi ngi foofu. Ama Baldé fu mu fu mu yeewoo boo ñaar di fa yeewoo Eumeu Sène di fa yeewoo Sokh di fa yeewoo. waruñu waruñu manqué dara mais nag xam nga rek yaa ma gën a xam làmp dafa bari ay détails mais bon ñu ngi lay ñaanal daal yal na yàlla defal jàmm ñoom ñëpp. ba ñu ba ñoom ñëpp ñu déggoo am benn entente boo xamante ni mooy mm-hmm. loolu quoi comme parcelle. Mm-hmm. ñun tey bu ñu sañoon gox bu ne. Mm-hmm. da ngay dund comme parcelle yi mu dund fii parcelle. mbër yi ñooy ànd promoteurs yi ñooy ànd sëriñ si ñooy ànd comprendre nga. te ñëpp ñëpp lañ boole lépp nekk benn tey boo demee jàmbaar. parce que écurie yëpp fa la nekk boo demee rek énergie doo xàmmee comprendre nga jaxasoo boobu dafa baax ci gox. Hmm. di yëkkateendoo di dóorandoo joxante cër. surtout waay. Ah, ah, beneen bi mooy gis nañ ni Modou daan na mais Modou day bàyyi moo day umra ji day stand by Modou Siteu lay bëreel tey jël nañ sax Permax mu ne am na ñu ko contact bu rokku Siteu ak Modou Lo gisoon nañ ni nag yaa mais nañ ñëw ci moo day umra ji Modou day bàyyi ba pare. loolu yooyu moom yooyu moom dégguma ko quoi. Mm-hmm. moo daal gën bëri na pare mi ngi noppaliku am na ay projet comprendre nga. Mm-hmm. am na yu mu def. mi ngi noppaliku daal yooyu am na am na ay décision yoo xam ne moom si acteur bi lay lay génne quoi. waaw yooyu moom ay wax la nii rek gars ku nekk nga naan day bàyyi day bàyyi mais muur bu bàyyi laamu tamit ko koy jox. Mm-hmm. waaw mais loolu am na yoo xam ne daal. muur en personne moom dina ko décider quoi incha allah. d'accord mais fi may waxanteeg yow muur mi ngi si làmb ji waaw. Modou Lo Siteu gisoon nañ dañoo amoon ay relation euh, rakku Modou day say kër si kër Siteu mm-hmm. foofu la yàqoo la fait que euh, Papa Sow moo doon bëree Modou loo ñëw fa kon donc Siteu ak ki nga xam ne Modou loo ñoom ñu ngi koy dox mais lool na nga ko diggee relation boo xamante ni demoon nañ bañ ne sax bëre amatu fi ñu dem ba benn instant Siteu pare pour bëre ki nga xamante ne moom mooy Modou Modou pare pour ne day bëre Siteu samay waxum Père Max. Ah, waa Père Max maa ngi koy nuyu au passage sama père bu baax la bon mais loolu góoma ni loolu mën na yàq mbokk quoi. waaw hmm. ah, mais parce que Modou Lo bëri ak Siteu. Modou dëkk parcelle. ak Papa Sow euh, ak Modou Lo ni ñu mel. Modou bàyyi fi Papa Sow pour dem ànd ak Siteu est loolu mën na nekk mais tey Siteu boo doon bëri ak Mama Lamine wala ngay bëri ak Abou Ndiassé xaaju leen fa bàyyi ñoo naan naan day ñëw parcelle pour jàppale Modou contact wala mu jàppale Petit Lo contact exemple quoi laa wax tey bu ñu demoon ba ak Petit di bëri est que Siteu dina bàyyi Abou Niasse caaro yi ñoo ñëw parcelle naan day jàppale Petit Lo contact loolu mënul nekk. loolu yàqul dara ci mbokk dëkkandoo lañ comprendre nga bon Siteu ak Modou pour man li tax mënuñu bëri. xam benn waay bu tudd Kader Kader. Mm. doom bàyyi Siteu la di sëy ak rakk Modou Lo. loolu léegi yàlla dafa dogal Kader moom dafa bokk ak Siteu si papa bokk ak Modou si yaay. Kajoor moo nekk ci diggante bi. mais si la bëggee bëreeg nag Modou te ñoom dégg nañ. ñoom ba ñu bëreeg la ba ñu bëreeg la dëgër ñoom ñu ne kii lañ bëgg du ci kàddu jugewul ci Siteu mais dégg nañ la ñuy bëreeg Modou. waaw lu jugewul ci Siteu nag kenn mënu si wax dara. mais Père Max nee na Siteu pare na. pour kayam wax la lu jugewul hmm. day umra day bàyyi làmb xam nga loolu mënuñu si wax. Hmm. même su si waxoon tamit. Hmm. nit ñi mënuñu ko dégg tant que Modou waxul boppam. am na loo xam ne Siteu bu ko waxee nga xam ne kon Siteu moo bëgg mais pour man loolu daal. dinañ permettre ne Siteu nee pare na pour bëre ak moom. waaw man de loolu mun ma ko gëm. Hmm. waaw parce que ñoom ay mbokk lañ quoi te Kader moom bu Kader si cumbukaayu Siteu la bokk Kader si cumbukaayu Modou Lo la bokk. Hmm. keroog bu nga gisee am na ay affaires yu ñu wane Papis bi lom làmb ci daw kooku mu longu noonu mu yor mu sol blouson bu vert bi kooku mooy hmm. Kader. boo xoolee carrière bi Modou Lo di am action ak Boy Niang bi ngi def ay action bëgg dugg ci stade bi. kooku mooy carrière. am na loo xamante ni pour man ah loolu pour man mënul nekk de. Hmm. Tapha Tine Modou Lo noo gisee ko. Ah, <laughs> hmm. mu ngi fi ah, ak staff bi. Modou mi ngi fi rek ak staff bi loolu bu dee lu war a taxawal la incha allah dina taxaw. Hmm. waaw Tapha Tine Modou xam nga mosuñu bëree. waaw combat jànk la. en tout cas en tout cas staff bi ah. non non mais Tafatine Tafatine yoon la mu bëreeg Moodu mais ça dépend si bi rek am na loo xam ne staff yi ñooy décider. Ah. parce que tey xam nga Moodu dafa ni naa ci luur yi maa ngi samay morom. Mhm. boobu maa ngi samay morom boobu tamit. Mhm. laa xamul ndax Tafatine mën na fa am chance. Mhm. ok foofu laay waxee quoi. kon. ay moroom booy. kon Modou Sa Thiès xaar combat booba. ah le combat neex la. mais est ce Sa a a ñëwee na Taphatine. <laughs> sa champion la Modou yële Taphatine. non Modou moom moo pare pour may ay pour may ay rakkam. Mm. comprendre nga loolu kay dara nekku si. Mm. dafa am benn boo xam ne dafa yàgg quoi chaque jour di dégg ay Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Bombardier nekk ci kaw noonu rek il ñu tas affaire bi quoi. grand contre petit moo dàq foofu. Mm-hmm. grand contre moo dàq. Mm-hmm. am na benn image boo xamante ni ñëpp ñoo gisoon dégg nañ sax nga ci doon wax. Mm. dafa am image boo xamante ne gars yi dañoo kii far est-ce que nekk pression lañ la waaw. ah da ngay dañoo saalit. est-ce que nekkul ne pression moo leen jàppoon. ah pression la neexoon rek. pression far la rek garaawul far day am. Mm. mais boo faree nekk seen seen liggéey. Mm. da ngay da nga koy sóor da ngay maîtriser sa oui am na yoo xamante ni jarul nga siy feeñ quoi. Mm. oui. Mm. mais garaaw xam nga rek far far dafa garaaw mais <laughs> image du jour yi xam nga rek damay bañ après gis nga TikTok bi. yaa ngi ciy dem normal. mais noonu la amul benn problème. Ibrahima mu doon xëcc xëpp gàllaay Modou Lo ñu jékki-jékki nag gisatuñ ko Ibrahima gàllaay ji mu daan yor Modou bëggatul yooyu mu koy sotti <laughs> yow Sadio. am na yoo xamante ni. utilise tu ko Ibulaay gis nañu day encadré Modou Lo maanaam daan def sol blouson bu noir ba yor affaire di sotti <laughs> gisatuñ ko lu xew. waaw yooyu léegi yooyu léegi yaa gën a xam ah. Ah. yooyu léegi nice ah. xam nga rek léegi gars yi màgg nañ quoi waaw change nañ dañoo change stratégie. kon Modou yi mu daan sotteekoo yooyu noonu da jël teg ne de Ibou Yàlla bagage yi mu daan indi <laughs> Modou léegi bàyyi na yooyu. daal noppal na ñëpp. <laughs> Ah. waaw ah, d'accord loolu da la nopp ci misi non non mais xam nga rek gis nga nit ne ak sa gëm-gëm. li wax ni bëgg gis nga gëm-gëm. Eh. àdduna lépp lu gis gëm-gëm la. Ah. mais loo dugg dis dis demee ak demi mesure. Mm-hmm. doo si dem doo ah. fi ngeen daan dem bu dee cinq bu dee bu dee quatre cent quarante quatre. sûr wàññeeku na bu baax a baax. cent quarante quatre yéen a ngi dem si non yaa ngi ci ay vingt cinq rek. Ibrahima non parce que yow wuyu ma am nga wuyu ma. Ibrahima si daan gis nga am nga am nga Sa Touba am nga ah. sëñ Cissé. Ah. am nga sëñ Massi la am nga sëñ Mor am nga Mor Cissé am nga Babacar Cissé am nga Laay Sibi Kotaan ah lu ngeen bëgga ci waa Taïba waa Fandène mais mais bi tey ba moo def yi muy yi mu daan def rek mais teewul gars yi ñoom li ñu war a def ñu ngi koy def xoolal papis papis bi nga li mu a def Serigne Ndiaye mi nga def li mu war a def ñoom baaw yi def li ñu war a def nga waaw noppi sax sama gars yi maa leen maa leen a au passage ah. vraiment gars yi ànd ak Modou yëpp nga boobu ba léegi ànd bi dafa rafet ñun ñu fa gisoon rek. nga fi gis ba léegi du dëgg donc nga xam ne loolu ànd bu nice la a uh-huh. vraiment. li may jeexalee ak yow Ibou Laye gannaaw nag ba nga frappé forte gis sa journée bu neex gaay ti la xaw mi jéen kayre ak Zarko Ibou Laye exemple <laughs> daa xaw a daanu daa xaw a dem ar <laughs> wala day calculer Ibou Laye loolu <laughs> <laughs> ay maa ngi rek newoon ci combat xam nga dama jógee si combat dugaat ci combat. Ah. donc dañ doon xaar combat moo di pare rek après ñu jéem dox du CNG. fu daj ji toll. Mm. jéem waxtaan ak la président CNG monsieur Bira Sène ñu ngi koy nuy au passage ñoom ñàmbee ñoom Maguette Sow ñëpp ñu ngi leen nuyu. Ah, waaw maa ngi defaat maa ngi maa ngi maa ngi link nank nank nag di xool. espoir. espoir bu saf laa bëgg. espoir bu ma saf. mais booy booy instant naqari nañ tëgg nag. dañoo dañoo seer. suu booy seer nañ te duñ bëri seen biir surtout. dafa garaaw. booy duñu bëri seen biir te yow xam nga baax li ma lay wax xam nga si dara yow. <laughs> lu ma si xam. non booy duñu bëri seen biir quoi am nay combat jànk yu neex yu fi nekk ci booy yi mais booy daal ay maalo seras lañ lay wax. ay zos. ay bàcc ay zos ay zos. non vraiment man booy xamul lu ñu bëgg ko seet te te te te am na ay combat jànk yu neex yu fi nekk mais yàlla baax na ñi ngi si quoi ñi ngi ñi ngi ñi ngi link nànk-nànk hmm. waaw comme ça bu ñu amee dara rek waaw waaw fenn seetlu su ma ko prise mayaatee ma jël ko de waaw laabale ko na ma déggaat caabi rek yow kay da ngaa war a jaar caabi ñu laabale ko incha allah <laughs> yàlla na ko yàlla def ci barki maam Babacar amin amin amin amin hmm. contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu dalaloon ki xamante ne moom mooy Ibou Ibulaay bu xarañ loo tey lañ seet si. Ibulaay promoteur teriñ ko teg na le doon waxtaan moom nag ci combat am ak ki nga xamante ni mooy Modou Lo ak Boy Niang bi ñu jógee di ko jaajëfalaat di ko wax bon tàggoo tàggoo dañuy tàggoo tàggoo bu du tàqali ko di la wax rek lan mooy si kàddu Fall alma booy bi nag. booy ba Diop de xanaa. waaye Fall du ko abalale nag <laughs> Fall loolu yow laay wax jox ma booy bi nag. waaye mu sedd waaw. Ah, soxla waaye Fallou Fallou daal instant yi moom moo yor Diop 2. noonu la demee ah noonu la demee kay. Ah, ah. Fallou eh paas ma paas ma àll ma xiir bi nag. <laughs> na de. na bari na moom. Ah, mais nice quoi mi ngi si mi ngi si parcours bu baax. Mm-hmm. xale la xam nga na mm-hmm. continuer rek àdduna moom liggéey la rek. mbooloo. Mm-hmm. fexeel ba boo ñu estaat bu sa mbooloo rus quoi. Mhm. liggéey la mi ngi gis nañ ko mi ngi si yoon mi ngi si lancé bu baax. Mhm. na fexe nu mu maintenir téye mbooloom rek quoi. Mhm. kontaan naa ci yow ñoo far waaw xam nga ñi ngi ñi ngi remercier ñëpp ñi ngi ziar ñëpp xam nga vraiment kontaan nañ bu baax tamit si interview bi. di wax wasalaam. <laughs>